bi nga xam ne ma ngi koy def dafay liggéey tamit ci benn cabinet boo xam ne xelam dafa màcc jëm ci wàllum ressources humaines moom Maya Abdoul wax na ni nga xam ne moom la ndortale lu jëm ci wàllu musique bi nee na ba muy am lu toll ci fukki at ak juróom-benn la ci dugg am na benn prix boo xam ne sax jëm ci wàllu musique ambassadeur bu Amérique ñoo ko organisé woon moom moo ko gañee wax na ni muy inspiré wo wax na tamit li nga xam ne mooy ay projet ma jëm ci ay album ak ay tournée ak ay collaboration yoo xam ne daat na koy bëgg yéen a kaay gii de Le Quotidien xëy wax ci financement yi nga xam ne waa européenne ñoo ngi koy jox Sénégal ci lu jëm ci wàllum émigration clandestine Union européenne jox nañ Sénégal lu toll ci cent trente milliards ci atum deux mille seize jàpp atum deux mille dix neuf lu toll ci dix huit projets yoo ne ci wàllum émigration clandestine la jëm yéen a kaay gii di Vox Populi nee na xaalis bi nga xam ne waa Union européenne jox nañu ko réewum ngir nag ñu faj si li nga xam ne moo jëm ci wàllum émigration clandestine xaalis boobee ana fan la duggoo loolee la ñëpp di laaj te nag jamono daal lenn rek la mooy constat bi li mu wane mooy amul benn projet boo xam ne gis nañu état bu Sénégal réalisé na ko ci lu jëm ci wàllu woowa kon nag jamono ji war nañoo laajale xaalis bi nga xam ne waaye Union européenne jox nañu ko Sénégal Sénégal fan la ko dugal ndax ren ji gis ngeen ñi nga xam ne ñoo dee ci géej gi yéen kaay gi di Vox Populi ñu fekk fa ñoo lànk ak société civile bi ñoom démb janoo nañu ak tas ko do xabaar yi nee nañu timit dinañu janoo ak Macky Sall ndax jàpp gi nga xam ne jàpp na ko Boubacar Seye tegewul fenn ñoom sax ñoo ngi waajal li nga xam ne mooy ay marche nee nañu jamono ji nga xam ne Boubacar Seye ma nga ca kasu bu rëbës ba sàcc yi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall Sall sàcc alalu réew mi ñoo ngi lambar-lambari di doxi seeni soxla yéen a kaay gi di suddi ko di xëy def ab taxaw seetlu nee na daal li nga xam ne nemmeeku nañ ko mooy ay jegeñaale Macky Sall ñi nga xam ne yóbbu woon nañ leen fa mbaxana doone benn seeni procédure dañu koo dakkal classé ko sans ndax gis nañu fi Aliou Sall ak wàllum pétrole ak gaz bi nga xam ne ñenn ñi jàpp nañu ne daf koo ngar daajoo ay dossier dañu koo classé sans gis nañ fi ne mooy Mamour Diallo Ousmane Sonko tuumaloon ko 94 milliards ñenn ñi jàpp boobee classé nañ ko sans suite jamono jooje nag ki nga xam ne mooy Macky Sall ma ngi traqué ñi nga xam ne ñooy activistes yi ak lanceur d'alerte yi maanaam teg leen fitna yéen a kaay gi xëy ca marché HLM bi nga xam ne maire ba jamono ji moo teg commerçant yu fitna ndax démb lu toll si ñetti téeméer ci ay cantines yoo xam ne maanaam dindi nañu leen loole nag moo tax commerçant yi mer nañu loola yéen a kaay gi di la Tribune nee na lu soxal wàllum crise économique bi ci réew mi coronavirus bi na nag jamono ji mën nañoo wax ne ci Sénégal gi yépp askan wu bare bare dañoo jaaxle ba maara day taali am déception maar day taal yéen kaay gi nee na ñu bari bu ñu xëyee lijjanti lu ñu dépensons moo leen di doy ay yitte yéen kaay gi di source xëy di ñu xamal laan ñu sëriñ Atou Diagne mi nga xam ne moo jiite woon daayira Hizbut Tarqiyyah te mu génn àdduna démb denc nañ ko ci bàq ya yéen kaay gi ne na mbooloo mu baree bari moo fa teewoon sëriñ Mountakha sax woon na ci quartier général bu Hizbut Tarqiyyah yi Youssou Diop moo ko wuutoo Youssou Diop mi nga xam ne moo toppoon ci Atou Diagne jamono ji moo jiite daayira Hizbut Tarqiyyah Atou Diagne nag jiite na daayira Hizbut Tarqiyyah lu toll ci 30 ans yéen kaay gi de Les Échos xamal lan ñu am na sénégalais boo xam ne rey nañu ko ci diwaanu Brésil Ibrahima Amar lay wuyo ab brésilien moo ko rey ndax doomu réewum Sénégal boobu ak brésilien bi dañu doon xuloo ñoom ñaar di werante si la ko brésilien bi waxee ne ko dinaa la rey si la demee jël ak fetal dóor ko lu toll si juróom ci ay coup yéenekaay gi di Dakar Times nee na ay at yu baree bari ma ngi nii askan wi nga xam ne ñoo yeewoo caaray sur mer ñoo ngi sàkku ñu tëj usine bii nga xam ne mooy seen chim xam ne dafa jokkoo ci biir ICS journal bi nee na usine boobee ak mbalit mi nga xam ne moo fa nekk toll na ci cinquante tonnes mbalit mbalit moomee nag déchet la la nga xam ne moo fay balle xet gu bon la goo xam ne mooy feebar askan wi nga xam ne ñoo dëkk caare sur mer yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu diwaanu Irak Bagdad foofee lu toll ci fanweer ak ñaar ci ay nit ñoo xam ne faatu nañu benn kamikaze moo leen rey yéen a kaay gi xëy ci wàllum làmb ji nee na làmb ji ñoo ngi ci dëj ndax booy bambara moo génn àdduna mu nekk mbër moo xam ne mu ñu ràññee woon la tey jii la ñu koy jébbal boroomama ci sëgi yoof yi yéen a kaay gi di esat xëy ci seizième de finale coupe Angleterre diggante Manchester United ak Liverpool